mo fi am loolu mo fi am réalité la bu am Sénégal euh, ko ñu nang ko ñu bañ ko ce phénomène la bo xamanteni ni mu ngi tass dekk bi fim ton ni aduna bi yépp nit ci yaq na am ay doomu jambour yu bari yàqu nañ ci affaire mystique ñi sanku nañ ñi def nañ ñi nawtal nañ leen ñi ñu xiit xaptal leen ci ñuy def lu bon mu nekk loo xamante ni dafa dafa dafa dafa ñaaw dafa ñaaw. Euh, morso bi tamit idée morso bi tamit idée wu Ibrahima la waaw parce que moom ci boppam texte bi bind nañ ko trois fois mu ne bëggul lii au dañu bëggoon a dugg ci ci ci ci ci ci kër yi ci kër yi parce que bërëbu liggéeyukaay sax dafa tas léegi <laughs> waaw donc mu nekk loo xamante ne nii fléau la bu ñu de war a bu combattre parce que euh, mi ngi tass dëkk bi donc pour sa say morceau la boo xamante nii euh, dama ko dañ ko dañ ci jublu woon juste sensibiliser la population sénégalaise wax leen que ne àdduna amul solo te nit ki li yàlla bind si sa jë aussi ala kulli aal di nga ci jot. donc jarul ñu yàqante jarul ñu defante lu bon parce que nit ki moom lii war sa gëm. Euh, te nek tay tey ka mu suba ala kulli adina ci jot donc lolo loolu mo nekkoon message bi quoi. mais bon parce que morceau bi euh dougalougnou ko sax YouTube mais nit ñi dougal nañ ko YouTube te la plupart nit so duggee ci commentaire yi dañuy wax né li dañ ko dund man sama snap lima ma jot ci ay message mënu mako wax. démb rek moo ci mujj daf am ku ma bind message ne ma man bul ko sànq mooy sama way parce que dama ci gis sama bopp. am keroog keroog yaa une personne bu ma message sur snap ne ma Aïda Samb li nga way xamoo ko mu ne ma man dama nekk ak sama copain ñu bëggante te yàlla rek tax te mu ngi nii dañ ko dañ ko liggéey ba mu dof mu ngi hôpital xam nga donc mu dugg nag ci boo duggee ci commentaires yi la plupart des commentaires nit yi dañuy wax que ne li nga way nii c'est une réalité réalité la lu nit ci di dund la ñi naan man dama ci gis la plupart dañ naan man gis naa ci seen bopp dund naa ko te vraiment loolu lañ ci jublu woon loolu loolu noonu lañ ci jublu woon mhm. ba alaa kulli aal di nga si jot Moy moy moy moy liko waral rek moy ke ne nit yi legui dañu dañu dañu war legui dañu dañu dañu dañuy ne aussi yalla amna parce que yalla mi ngi bind adama euh def ci mom limu def ci mom yow doomu adama bi nga xamanteni ni yalla mo bind nga bëgg yaq dom jambour bëgg ko xagn liko yalla def da ngay sonu sa bop rek mais kulli au contraire. li li Alima Alima Ndione wax mu ne mosoo gis nit ku yàq benn koo gis mu yàq benn rek moom ci boppam leen a fukk donc loolu mooy àdduna daal. Sénégal